wasalla allahu taala ala sayidina muhammadin ñoo ngi fii ci kanamu Serigne Amsatu mbakke moom Cheikh Abdoulaye Lahat moom Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ñëw fi tey nag ci ndigalu Cheikh Mamadou Bachir Anta Niang xalifatu Cheikh Ibrahima Fati borom Darul Moxti waaye ci taxawaayub euh, ki nga xam ne moom la Serigne bi dénk lépp lu jëm ci wàllu communication màggalu Darul Moxti muy Serigne Abo Mbacke moom Serigne Bassirou Anta Niang waaye Serigne Abo Mbacke moom soxna taay moom Cheikh Abdoulahi Lahan Mbacke nu ñëw fii nag tey ci kanamu Serigne amsatu Mbacke mi nga xam ni mooy njiitul xo daamul xaddim di euh, kuréel goo xam ni lépp loo xam ni jëm na ci war may dëkk bi ak taxawaay taxawaay bu mat sëkk ba Serigne bi li mu bëgg ci dëkk bi lépp mu am ko moom mii moo ko jiite. ñu ñëw fi nag tey ngir sàkku ci moom ay kàddu yoo xam ni rek dana jëm ci Cheikh Ibrahima Fati borom Darul Moxti di gëm ak sangam bu tedd ba magam ja sangam ba sëriñam ba serigne touba Cheikh Ahmadou Bamba rasoul rawati rawatina wéru sahaban wi nga xamni ci lañuy fatéliku Utuki dajé ginaaw tukki bu sel bi nga xamni serigne touba Tuubaa Cheikhul Xaadim tukki won nako kon ñu jël micro bi dékk ko sëriñ Amsatu Mbàkke ci mom ay cadeau digënté serigne touba Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh ibrahim fati borom darul Muxti sey abo ma ngi lay nuyu yag ñu nga àndal di jot nga agal mu sama sama serigne bassirou خليفه مام تيام نيان سون بروم ياغال كو في تويل كو بام اغالي نالي ماغام ييب اك نالي واجورامي اك نالي بوبام مو اند وير اك غود فون نيان ايتام وسا دار محتب ييب يالا ديفال لين جام ديفال لين توفيق موسال لين خمنا دي امبيكتي موري نك اك بانيخ ci ñew gi ngeen ñew fii ci ndigalu suma wajur Cheikh Basir di bëgg taatam ay kàddu yoo xam ni day jëm ci sunu sëriñ sunu maam sunu kilifa Cheikh Ibrahim xam naa dana jafe ndax dimension bi mu toll dafa kawe ndax da nga dul xam moom dafa bokk ci kumalul awliya bokk ci akaabirul ulama kon nag ki wax ci moom dana jafe

mën ngaa wax ni ñim jàngal rek doy na sëkk sëkk sëkk sëkk nga xam dimension xam-xamam te dafa am lu jafe loo xam ni moom la ko yàlla jagleel ndax euh, produit wu sëñ Tuubaa la boo xam ni kenn fépp ko ca am na ñoo xam ne dañu fay ñëwee ci mag am na ñoo xam ne dañoo jàng doog fay ñëw ci moom waaye moom sëñ Tuubaa da ko defal léppam kon sëñ Tuubaa moo ko mu ngi dëgg dëgg sëñ Tuubaa kon ndax comme mooy bara droit am xaddu yemini yi nekk aminu sirri yi kooku moom rek la lam daawul waxtaanee kenn moom la koy waxtaanee kon mooy secret Sëriñ Tuubaa dëgg dëgg dëgg ci borom daaru la nekk ku mel noonu nag waxtaanee ko mooy waxtaanee Sëriñ Tuubaa ndax li nekk ci moom lépp Sëriñ Tuubaa koy def Sëriñ Tuubaa wóolu ko doyloo ko moom itam mu doy. mat sëkk di bokk sëriñ bi lakk laqrab di taalibeem boole nag xaqiiqa ak sariya fekk maanaam ci gàttal xaqiiqa ak sariya mooy doon doon doon li sëñ bi wax boole tasawuf ak fiq mooy sariya mooy mooy mooy loolu xaqiiqa ak sariya muy jëmm joo xam ni wàllu xam-xam wàllu jaamu yàlla kenn mënu ko jajam ak taalibe itam kenn mënu ko jàpp muy ñaar yu boole yu jafe te mooy li sëñ produire ci moom am na ñii dañuy doon sariya ah, doon doon seen taalibe du ñëw ñii doon nituk eh, nituk eh, xaqiqa seen sariya ah, du ñëw moom nag daa dañoo boole yëpp ci moom kon nag loolu moo tax mu mat moo tax mu gën a mat ñëpp itam te dafa lëggéeyam dafa dafa def ak lëggéeyu sëñ mu baax baas dañoo jonjoo ci yu bëree bëri ndax sëñ bi bariwul ñu mu yónni yenn yi waaye xam nga xam ni na mën na koo wutu xam nga xam nga xam ni li newoon ci moom def na ko ci moom moo tax ba mu yónnee ndar moom la yónni ba mu yónnee ndar moom la ni ca tubaab ya mu demee fa ak mat demee fa fulla demee fa ak doy bala sëñ bi bëgg ak la mu war a wax mu wax ko te yokk ci dara wàññiwu ci wér dikk dikk fekk si waat sëñ bi kon kooku am na lu mu ci liggéeyu sëñ bi ndax sëñ bi moo waroon dem te mënta dem mu yebal ko mu dem bi sëñ bi loolu mooy awalan bi sëñ bi bi liggéey bi commencé rek ko loolu mooy ci la jeewal ñëw ba sëñ bi dem dem ndar def yooyu bi mu demee ndar yi bi mu demee itam dénk ko lépp yoon yu murid sa njabootu bopp Cheikh Mamadou Fadl Cheikh Mamadou Moustapha maam Thierno la ko la ko dénk kon moo ko doon ci njabootam taalibe itam ñi muy defar ñi mu doon defar jonjoog ñoom moom la ko dénk benn ci sama turandoo wax sëñ Amsatu Jaxate ku ne xam na fi mu toll ci suñu borom ak fi mu toll ci yàlla bi mu ñëw ci sëñ mokk na alxuraan waaye bi sëñ bi dem itam maam Thierno la ko dénk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bi mu desee la koy doog a jël kon xam nga ni amul dendandoo amul nawle ku mel noonu nag su bisam ñëwee ñëpp a ca war a teew ndax njëriñ rek lañ fay jëlee loolu dafa amut ku fa tëbb tëbb nga ci digg digg sëriñ Tuubaa ndax bi mooy sëriñ bi bokk na ci mébétam fii mu nekk moo bëggoon moom dongal tànnoon wétali ko kon kooku xam nga ni sëriñ Tuubaa amul nawle waaye Ceerno la nawle woon te mat nawle tamit ndax dafa sàmm màndu mat ba noppi matale di liggéeykat boo xam ni amul nawle ci liggéey surtout xam nga yim boole di borom nitu xaqiqa di ba noppi nag liggéeykat li mu gor ci ay tool ci ay dëkk 40 kilomètres la ñu wax di liggéey di dundee aw ñaqam di liggéey di jox sëñ Touba dafa defoon ni magasin xam lu mu liggéey fa lañ lu sëñ bi soxla rek fa la jël si kooku kon denc dara ngir boppam. dafa pare lépp léppam ngir sëñ ngir ngir sëñ Tuubaa doy na sëkk rek sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne moom kër gi tey baat bu ko maam Thierno dénkoon boo xam ne ci la sëñ Abdou defee lépp lu mu def boo ko sëñam si jaxatee woon ni ko demal seeti sa maam ci sa sa baay Thierno mu téye ko fa ay ay fan ba muy ñibbi mu ne ko lépp a ngi fi waaye la jox dara. ndax boobu sëñ baa ngi seen lu ko ceerno dimbale wala nanga na mu ne ko dara laal du jox daa boo xam ne fu sa baay àgg moo fa àggale moom laa dénk muy nga na nga am jëm sëñ Abdou lu mu def jëma ko jëma ko def lo boobu nag doy sëkk rek hmm? nga ni li sëñ Abdou Lahad def te jom def ko te fulla def ko lépp maam ceerno ko digal ku mel noonu nag jàngal ku mel ni الشيخ محمود الفاضل داغال كو الشيخ محمود المصطفى ني تكو تي لوخوم اك ماغي موريد ييب كو جوار ديلو نديكو لي نون تا موريد بن بو مانا فاي تيانو بور ام كن ماتال كن مونت ماتال اقام ndax nim def seigne touba ak niko seigne touba def lolou mo jafé baradram dafa jex moni moy sama hadd yamini moy sama beug ndiyor la seigne touba waxon kooku rek dafa doy sëkk doon loxo sëñ loxo ndeyjooru sëñ Tuubaa rek dañu sëkk ndam dañu sëkk de kóoluteef muy ndab loo xam ne nag sëñ bi da koo duy ba mu fees del del del del mu rokkos ko ba dara xayu jut lépp Ceerno mooy lépp sëñ bi lépp sëñ bi tam mooy lépp maam Ceerno kon su bisam ñëwee sëñ Bas mii nga xam ni moom la yàlla tekki ci kanam ci njaboot gi muy nit ku bari xam-xam moom itam nit ko mën a jaamu yàlla di nit ku mën a muñ ku goree te doylu ba yàlla teg ko fii ci kanamu njaboot gi toppe rek moo ko may diggam ak sëñ laa ku xam na ko sotti jeeg def la woon da daal waxtaan ci biir nekk loo xam ni kenn mënu koo wax li tax nga xam ni maam Thierno amul nawle dama koy tënk ni rek junj ndax euh, sëñ Bass moom yaakaar naa moo ko sëñ Abdoulaye la woon am na bis boo xam ni dañoo ñëw tubaabel ba añ jotee sëñ bi woo sëñ Bass ñu kaay nu bokk am ku mu xam ak jigéen noonu ci ak bokk mu di ko wax ngir bëgg sëñ bi ne ko bokkuñu bàyyi bokkuñu waajur yi bokkuñu hmm? kon maam Thierno day day sëñ bi rek ci gàttal day sëñ Tuubaa ci gàttal hmm? day sëñ Tuubaa mooy produit produit bu naturel boo xam ne lu ne ci moom sëñ Tuubaa bi def waaw te bu doon bu doon bu doon bu doon bu doon bu doon bu doon aw ñam tey engrais yëpp da cee nekk am na ñoo xam ne seen seen seen seen seen ndab xaj na manqué na jaxatu wala manqué na soble wala manqué na nangam wala manqué na diwlin ci ron nag ndaawam lépp da jaane manqué wut xor manqué wut dara ku mel noonu yalla yalla na yàlla taas ci te yàggal fi njabot gi wëral leen fas yéene ñun ñëpp di talibé rek ngir tëbb dem daru Musi sakko barke da yaakaar naa lu way ñaan ci serigne touba tawsul ci mam Thierno da nga ko am 100 kon nak jamono yek jafe-jafe ñu ci réew mi yalla na serigne touba safara yalla yàlla sun borom safara ci barke mam Thierno ci maglu daru Muxti wax yi du gudd am na am na benn kii rek mbàkke bu ñu bëggoon a tëjee mooy euh, ni nga ko waxee sànq diggante Cheikh Mamadou Bassir ak euh, Cheikh Abdoulaye Lahat yaakaar naa ñëpp xam nañu ko. Euh, boo ñëwee ci keppaaruk sëñ bi sax daanaka doo toog bu jug lu mu la wax rek danañ sëñ sëñ Abdou nee na ma nangam yàlla def nag sëriñ bi di woote jumaa joo xam ni daf koy defal borom daaru muxti ndax xam na ni mënu ko defal dara lu ko gën a neex yeesalal ko jumaa jooju defar ko muy jumaay ñetti milliards. waxoon nañu tamit bu ñëwee ñu sàkku ci rek ay kàddu ndax euh, maam Thierno ëpp na génn kër maam Thierno yoon mi ñëpp la ak jullit yëpp euh, mu fas yéene ne ci liggéey boobu nu ci soññi taalibe yëpp rek. loolu de moom ku bëgg ndamul Serigne Touba bëgg ndimbalul Serigne Touba bëgg teraange ëdd ak àllaxira ba nga barkeel ci daal jooju ca jumaay euh, daarul maxti jooju ndax moog ji sëñ bi tëdd ak fa Thierno tëdd benn la. xaj sun borom ak serigne bi ñoo bëgge mu doxal ni ñawra na bokku bokk ne gannaaw nak tekkali ko ba def fe juma ñu denc fa mam ciar fon jàppal ni fa la serigne bi ne sunu waju bi nga xam nak mo koy yok ni rek la nit mom day reuy xol surtout kilifa yaatu den bëgg ñëpp jooy nak motax tax diko woté ni ba yok som som bi ag fi loolu nak lu dara ci yoon murit du dara ci murit du dara ci julli sëñ Tuubaa ci julli julli si na ci ñëpp def na ci ñëpp jàpp ndax euh, bëri ko ci mbata la ku ci jàpp mu ku ci jàpp mu àgg ndax kat bu sëñ Tuubaa de première Cerno deuxième waaw te daa fekke tàmbali bi fekkee mujj lépp ànd ko sëñ bi rafet kon nag fa tëdd daan jaamu yàlla te ku ne xam ne euh, bi mu fi bi li muy dund ba mu fi jógee mësati mbaa benn yoon la ko def la ñu wax te bu amee ndox euh, fay na ko kooku yelloon na jàkk yelloon na jumaa kon kii kii sëñ Bass mi mi mii koy def war na ma ni moom de Ceerno ko sëñ Tuubaa ngir mu yaatal ko ndax fa yonent bi dañ koo yaatal fii jumaa ji sëñ Tuubaa sëñ Abdu Lahat da koo yaatal kon nag bu yaatalee wàcc na yàlla na fa yàgg te wér te àggale barki sëñ Tuubaa barki borom daal amiin amiin euh, jërëjëf euh, mbokk yi kon kàddu yooyu la ñu jëlee woon ci sëriñ Amsatu Mbàkke moom Cheikh Abdoulaye Lahad Mbàkke muy kàddu yu am solo yoo xam ne wax dëgg yàlla Mbàkke waxaaleen nga ko njabootu Cheikh Abdoulaye Lahad gépp ndax euh, sang bu tedd boobu de tey bu fi nekkoon na mu daan jàppalee sëriñ Basiru ci lépp lu mu mën a nekk xam naa ne boobaa dana yëkkati kàddu yi nga yëkkati jëmale ko ci kon nag noo ngi ñaan taxawaay bi yàlla na yàgg nga daje ci ngërëmul Serigne Touba liggéey bi ngay liggéeyal Serigne Touba yi ci dëkk bi sunu borom defal la ci ndam ndax yow itam Serigne Touba nga koy defal maam Thierno defal ndax maam Thierno jàpp yëpp leen bi di Serigne bi wax dëgg yàlla moom itam mi ngi ci taxaw taxawaay bu am solo ñu leen ko seedeel ci tuuru njabootu borom daaru muxti gépp ampal